siiw du jàmmi boom maa ci xam ma jigéen ñamale gi tey dana ci bokk xalifa Sall mi ñu doon romandaat naan xëy na mooy gloria bi président Sall doon tudd mm. démb daal gis nañ ko ci ab vidéo bu siiw boo xam ne daal doon na wax ak benn xaritam xarit ba nag euh, xaacu na ci ba bëgg de dee la mu bëggoon a xam daal mooy Euh, gloria boobu ñu koy jiiñ ndax moom ak du moom waaye la jaaxaloon xalifa ca vidéo ba nag mooy lu tax mu ni xaritam bi lan moo tax bi ñu nee gloria sa xel dem ci man nga xalaat ma ak kàddu yam ca teg ni du masa dem euh, nekki gloria ndax nee na dégg na ci wax ji buggaan ni ku sa ndey liggéey du reere poñse te moom ndayam da koo liggéey liggéeyal euh, beneen bi mooy tataay da tey dañoo grève dégg naa vingt quatre heures quarante huit heures muy mm. nekk lu doy waar loo xam ne xam naa problème mu payoor mën na caa dugg ak ñàkk ay seeni ak ak yooyu ñeen war a jox mm-hmm. euh, loolu dana ci bokk Bougane de toj na Mbàkke te tey jii lay defe naa ne war na jëm fi nga xam ne moom mooy kër Momar Sarr mm-hmm. euh, fa yéene dem saafoonte waat ak gars yi tibbati tànk mm-hmm. tabarkalla voilà son yu bu xalifa de lu wax la parce que bu ñuy wax li gën ñuy wax dara. Mm. ñëpp di di la joxoñ te fekk na yow sax lañ lay waxal amaana yow nekkuloo ci moom nag euh, ah nit moom nii la rek suñ la tuumaalee am nga droit nga génn nga wax goloria mm-hmm. sax meew. Mm-hmm. te gis nañ ni wax na ni carrément fi ñu nii lu ñuy uniquement opposition bi ñu booloo doon benn. Mm. ngir rek vaincre nga xamante ne nii moo di peut-être seen wujj bi hmm. noonu laa ko mën a dippee muy président Sall parce que tam gis nañ fan yi mbir yi nu mu demee mais nag ak lu si mënti am rek loolu moom mooy fulla li tax nag Khalid bi daal koy eh, eh, eh, soupçonné wax ko ne ko pourquoi yow hmm. loolu tamit moo yey laaj ko ko parce que hmm. tamit ñu bëri ñu ngi fi ay leaders yi bëree ngi fi lan moo tax Khalifa Sall xam naa li ko waa ji jaale ji woon la rek voilà xam naa sûrement te que sénégalais yi nag dañuy gis benn affaire rek ñu ñu ñu ñu daal di gaaw gaawantu daal di def say seen ay analyse daal di koy euh, def ci seen xel te loolu du du yoon.